السلام عليكم ورحمة الله مبكو انترنت جو سين فوتبول تي في نيو نالين بو باخ باخ زيار لين دي واخ ني خامتان دانيو بيشي شين بي ابوني لين كليك لين سي كولاج مو لين بيرميتو فيديو بي ندوغل نين مان كو سيتان بو لين فاتي تيميت امي فيديو سي تري امبورطون تاي نك فيديو بي ليكا تاخا جو يينا ما سي انتربلي دونت نك ديف نيا سي فيديو اكسبليكنا ديفال نال غستو muy ñaari jour yu xamantene bëgg ngeen ci am ay leral lutax ngeen bëgg ci am ay leral nak dafa nekk ñaari jour yu xamantene dañu am temps kenn ki nekk olympique de marseille ñu koy wax bobakar camara keneen ki nek l'île, ñukay wax Boubakary Soumaré ma wax leen ne dossier bi nek na dossier yu xamantene difficile na lool. prestation yi xamantene ne ñoo koy def muy Boubakary Soumaré ak Boubacar Camara ni ngi koy gisee suñu coach bi Aliou Cissé noonu la ko gisee waaye nekk na dossier yu xamantene ne dafa difficile lan moo tax mu difficile nekk na ñaari jours yu xamantene ne seen entraîneur Ripoll maanaam entraîneur espoir bu France da leen woo da leen teg titulaire nekk nañ tamit ay joueurs yu xamante ne dañoo prometteur maanaam mën nañ lu ñuy def am nañ ci ñoom yaakaar mën nañ nekk gën di joueur ëllëg football si équipe de France. waral mu nekk dossier bu xamante ne dafa difficile léegi nag bu ñu xoolee début de saison bi mu commencé ba tey Aliou Cissé mën na am yaakaar pour woo ñaari boy lan moo tax mu war a mën a am yaakaar premier boy bi Boubacar Camara gis ngeen ne Ligue des champions lañ ko doon xaar joué nañ deux matchs.

Koulibaly la ndax dem na boo wax ne ba sañoon sax day bokk ak moom équipe wala bu ñu bëggee am dossier bi lee mën nañ ko jaaral si Koulibaly mu wax ak booy bi convaincre que mu ñëw équipe nationale du Sénégal ñu dem beneen dossier bi beneen dossier bi tamit nekk na dossier bu xamante ne dafa difficile lool muy Boubakary Soumaré Soumaré nag nekk na joueur bu xamante ne dafa prometteur football français yaakaar ko bu baax a baax Ligue des bu ñu fa demee a gis équipe bu mel ni Wolverhampton sax ba joxe 35 millions d'euros pour jënd ko mu bañ ndax moom dafa jàpp ne ak talent bi mu am war na mën a jouer si équipe bu léegi bi dossier bi lu tax Aliou Cissé war si mën a am yaakaar bokk na si ancien coéquipier muy mi waxoon ne ma sa waxtaan ak moom booy bi nag carrément bëgg naa Sénégal lu mën a nekk la leneen lu xamante ne tamit mën na tax Aliou Cissé woo bokk na si bi ak Lille Galtier un entraîneur nek fo titulaire indiscutable man nañu wax ne sax ci banc bi lañ koy tek wala jëmono bi mu nekk benn opportunité pour suñu fédération sénégalaise de football ñu mën a convaincre Boubacar Soumaré mu ñëw ndax nekk na profil bu xamante ne yàgg naa ko wax amuñu ko si équipe nationale du Sénégal am na talent te ba tey xale la. donc mbokk yi xamante ne yéen ma doon posé question pour muy insister bu baax a baax andil leen si ay leeral lii laa leen si mënoon a wax xëy na fii ak ay mois lu bees bu fi amee dinaa si defaat vidéo gën leen expliquer donc en commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis di leen jaajëfal di leen wax ba beneen sur Senfootball TV